salaamaaleykum suñu mbokk internet yu euh, Dakar Net ginnaaw bu ñu leen nuyoo dal leen jàmm ci les minutes de l'info ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor les minutes de l'info alors les minutes de euh, l'info ngeen ci ànd ak Ousin ñu koy ubbeek euh, ki nga xamante ni moom mooy Bombardier ginnaaw bu site internet yu bëree bari ak euh, daal di dafay article jëmale ci moom que ni dafa am malaise Bombardier ci téléphone leeral na lépp bi waa l'observateur jokkoo ak moom alors Bombardier li mu wax mooy moom mi nga xamante ni moom moo waroon def combat boobu noonu ak ki nga xamante ni mi ngi tudd Podzianowski Podzianowski bi nga xamante ni champion du monde la champion du monde polonais boobu noonu ginnaaw bi mu desee ay quelques heures ñu waroon a bëre ñoom ñu waroon a combat ah voilà ñoom ñaar alors euh, Bombardier ci la sentir li nga xamante ni moom mooy ay point de côté di metti ci waxam nee na point de côté bi muy commencé metti ci lay woo organisateurs yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo organiser euh, combat boobu noonu ginnaaw gi si lañ ko envoyé benn médecin bi ñu ko envoyé médecin médecin bi gis ni moom munul bëre ci ay bës yi di ñëw dafa mel ni ñu gis ni tamit fatiguement la te Bombardier si boppam waxal na ko boppam nee na Euh, poids yi nga xamante ni daf ko doon yëkkati dafa xawoon diis trop trop loolu moom moo ko dem ba indil ko jafe-jafe yooyu noonu mu commencé yaram bi di metti alors bi ñu ko laajee tamit également digganteem ak gason Mbengue ak ci li nga xamante ni mooy combat bi mu ni moom tout le temps mi ngi déggante ak bom Bombardier te sénégalais yi tamit li nga xamante ni bind nañ ko si yenn sit internet yi moom loolu daf ko jaaxal trop ndax jamono ji ñu toll di wax ak yéen mi nga fi nga xamante ni moom mooy Paris euh, di def ay traitement du yàgg dara ay bés yi di ñëw dina ñëw dina ñëw fi nga xamante ni moom mooy Sénégal combat am ak euh, Balla Gaye bi nga xamante ni gason Mbengue moom moo ko tëgg ba ñuy wax sax naan euh, mois de juin la ñu koy tëgg nee na moom pare na tax nee na moom dafa signé euh, dafa signé ñetti combat ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy yi donc am na possibilité ñoom dañuy xool ci fonction am ak li nga xamante ni mooy lutte sénégalaise bi bu bu ñu jàppee date bi moom ak Balla Gaye dina jël li nga xamante ni moom mooy beneen combat daal di koy bëre waaye nee na ci wax mi ngi. Euh, rassuré sénégalais yëpp te nee na jamono ji ñu toll ni mi ngi si jàmm te ay bés yi ñëw dinañ ko gis euh, fii ci euh, Sénégal lundi 22 ak mardi 23 février bi ñu leen tegee loxo Guy Marius Sagna ak ki nga xamante ni moom mooy Clédor Assane Diouf di leen toppee ay trouble à l'ordre public ak yeneen i mbir woote ñaxtu bu ñu euh, bu yoon di tere ñoom ba nii ñuy wax ak yéen tey dañu waroon jàkkaarloo ki nga xamante ni moom mooy juge Samba Sall huitième cabinet tey la ñu waroon jàkkaarloo moom waaye ci xibaar ñoom war nañu am li nga xamante ni moom mooy euh, liberté provisoire bu ñu sukkandikoo euh, ci ki nga xamante ni moom mooy avocat am avocat bi neen dafay def demande ci liberté provisoire ñu bàyyi ñi nga xamante ni ñoom lañ leen di toppee nee na jamono ji ñuy wax ñet Guy Marius Sagna ak ñeneen ñi si des ñoom ñëpp ñu ngi ci jàmm CONEMS CONEMS de benn coordination boo xamante ni euh, association la boo xamante ni dañuy yëngu ci wàllu jàngale ñoom euh, xëpp euh, dal nañ ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa G7 G7 association jàngalkat bi ëmb association jàngalekat yi gën a mag si réew mi G7 boobu nga xamante ni dàmboo ci la bokk ñoom dal nañ ci yenn seen yenn responsable bi nee nañ Euh, ñoom ay politiciens déguisés lañ maanaam dañuy mbubboo euh, syndicat léegi di ci commencé rax li nga xamante ni moom mooy euh, politique Pape Ibrahima Dieng sëriñu ndakaaru yéena yàbbi ci mbir bi fi xewoon ay bés yële ñëw moom sëriñu ndakaaru bi ginnaaw point de presse bu mu doon def moom nee na euh, président Macky Sall na jël matikaayam te nee na moom euh, si communauté lébu bi nga xamante ni moom la dirigé du ñu bàyyi kenn di taal ndakaaru te duñu bàyyi benn partisan rawatina waa Ousmane Sonko yi di wax naan demal ci kër diw nga taal ko demal ci kër diw nga taal ko te nee na képp koo xamante ni da nga jóg pour taal wala nga yàq fii nga xamante ni moom mooy ndakaaru bi nga xamante ni moom mooy euh, Cap Vert ñoom ñoo ko sanc ne nañ doo am jàmm fii doo am jàmm fële daanaka ay tëkku la jagleel ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, def manifestation yi ñi nga xamante ni ñoom ñooy taal osan yi wax na ci président Macky Sall nee na président Macky Sall na jël ñi nga xamante ni ñoom ñooy chef de quartier yi ak chef de village daal leen impliqué ci liggéey bi nga xamante ni bëgg na ko liggéey ngir réew mi jëm kanam ndax ñoom ñoo xam lépp li nga xamante ni moom moo wundu ci euh, seen i euh, biir koñ ki nga xamante ni moom mooy Simon Simon bu Y'en a marre yéen yàbb ci troisième mandat bi ginnaaw bi muy waxtaan ak suñuy naataango waa réew mi euh, réew mu info moom nee na mbir mi nga xamante ni moom mooy troisième mandat président Macky Sall cee war a wax ndax démocratie toll na foo xamante ni lépp dañu ko war a xam te nee na ci biir waxam nee mbir mi fi mu toll nii ak. nga xamante politique bi ku nekk yaa ngi préparé di waajal sa bopp yoon la moom si boppam mu gindi Sénégalais yi ndax dafay def troisième mandat wala du ko def te bu ko dee du ko def tamit ñoom pare nañ pour jàmmaarlo ak moom Gambie Sagnang mbir mu rëy bu fa amoon ay bés la di ñëw ñëwoon nañ ci ci xibaar Sagnang jàmm ñëwaan na fa waaye jàpp nañ ñi nga xamante ni ñoo toll si ñeent fukki eh, Gambien teg nañ leen loxo police moo leen teg loxo ginnaaw enquête ba ñu wax leen sax ni Sénégal yu bari dañoo dawoon dëkk boobu nga xamante ni mu ngi tudd Sagnang ndax jafe-jafe yi ñu fa commencé woon di am ñu commencé di taal seen kër yi ak di leen commencé bund xatal ba sax ci xibaar am na koo xamante ni dañu ko sotti woon pétrole ngir ko bëggoon ko taal ginnaaw gi si la dawee dañu koy daaneele ak accident bu doy waar am fi nga xamante ni moom moo nekk Gouloumbou nekk fa la nga xamante ni moom mooy Tambacounda benn cavion euh, camion citerne bu malien bu defoon gasoil moom moo dal ci benn li nga xamante ni moom mooy sept place ba ñaari nit daal ci génn àdduna ñu bari daal di ci euh, blessé jamono ji ñuy wax ak yéen ñi ngi ci euh, blessé yi ñi ngi ci hôpital bi nga xamante ni moom mooy hôpital Kédougou bi te sax si ñaari nit yi gaañu kenn ki benn xale la bu am ñetti at wéy di abonné seen site d'information bi di dakaar ne dara du la rëcc ci réew mi